muy Macky Sall dafa ñëw mu teg PSE. Mhm. mu am cinq secteurs. Mhm. prioritaires. exactement yoo xam ne ñoom ñoo war a porter l' économie. Mhm. yow tu auras combien de secteurs prioritaires. ak ban vision ngay teg ba nga xam ne secteur prioritaire yooyu dinañ mën a drainer. le reste mais bëgg ma répété li ma waxoon xanaa man sama vision bi dafa claire li ma la expliqué la. le système structurel yi ñi moo ñu sonal. yii yëpp boo ko defee dox wax naa la au début ne la yii yëpp dañ ko war a sànni teg à côté parce que lu tax ça marche pas. mais lan lan nga fi indi. mais in dama la ko wax sànq nee naa la yow yuq bi lañuy tàmbalee il faut ñu créer le sénégalais boo xam ne ci base am ci culture am ci valeur lay tàmbali d'abord xam nga mais raay bu war a dox nga wàcc raay bi dem mënoo yegg loolu moo ñu dal cest à dañoo commencé gut export boo mën a jëlee bitim réew indi ko fii. li PS di baax baax baax baax bëri na lu bëri ci baax ci PS bi attention bëri na lu bëri li fi président Macky Sall jógee def ci biir réew mi te bu fi jógee dinañ ko xam ci infrastructure man na ma dugg ci biir àll bi gis leen fa def ci infrastructure def def ko ci mbedd yi def ko ci yenn forage yenn et cetera tey boo duggee Dakar xam ne am na changement. mais def am lu ñu fàtte. lañ fàtte. mais le Sénégalais tabaxuñ ko yow kan moo tekk ci réew mi étranger yi ñoo fi tekk di. kan mooy jëriñoo lu ñu am étranger ñoo koy jëriñoo ñun tabaxuñ lekkuñ li ñu defar li ñu sol yëpp keneen na ko defar yow li man ak yow yëpp li ñu sol bi sax Sénégal lañ ko ñëwee et mais lii yëpp bitim réew la jóge li koy ñawee puso sax defaruñ ko fi ñuy tëdd soo demee sa kër ak fi may tëdd yëpp bitim réew la jóge balaa ñoo kontaan ni ne ah, yëre yi ma la fourniture bi nekk sama kër Dubaay laa ko jëlee wala et cetera wala Chine excellent comprendre boo génnee ci kaw tali bi nii xale yi nga xam ne ñoom la ñu war a jàngal xam-xam def si ñoom économie de la connaissance ñu ngi jaay li seen morom yi defar chinois di dàqante ci kaw tali bi di ko jaay. le gouvernement bi war a joxe exemple yi costume cravate la ñuy sol yoo xam ne du ñu ko tabaxee ci biir réew mi du li ñuy lekk la même chose mais réew moom pour nga defar ko il faut nga dem ci d'abord la base sénégalais bi nga créer sénégale boo xam te man moom laa gis bitim réew loolu laa bëgg indi sama réew créer le rêve bi ma américain yi jàngal man moom laa bëgg a créer the Senegalese dream boo xam ne bu génnee ci bitim réew du kàkk yi mais dana def nii avec fierté. <laughs> mais on est fier on n'est pas fier. on est fier. yow yow vous êtes fier de ce qui se passe. je suis fier de ce pays. non non c'est pas seulement économique fierté. ce sont les valeurs. fierté c'est ce pays qui nous a permis de vivre. d'être en bonne santé de travailler bonne santé yow yaa nekk ci santé d'être en bonne santé de travailler d'avoir des repères xam nga fier fierté fierté du parce que dama xiif c'est même quand j'ai faim je suis fier de mon pays yow fierté bi wax yaa ma gën a xam bu mu jaxase ak Sénégal non ma ne yaa ma wax fierté fierté fierté du lekk du naan ma ne fierté. Sénégalais lekkatuñu naan moi quand je sors je suis je ne suis ouais, pas américaine je suis mais vous êtes à l'aise j'étais jeune suis sortie je suis fière de dire que je suis sénégalaise bravo vous l'avez fait mais tey fierté bi ma lay wax yow yaa ma gën a xam. waaw man fierté boobu laay wax. d'accord naa ci boobu. Ah. boobu kay ah. ñoo ci ànd. man ah. fière d'être sénégalais kay moo tax ma mel nii nag. yow maa ngi yow ñoo ñoo bokk li ñuy wax. voilà. mais bu ma jaaxalee Sénégalais yi waxuma loolu wala Sénégalais de da nga ne on n'est pas fier. su may waxee waaw mais bàyyi ma expliquer lu tax ma wax loolu. waaw bi ngay wax nii sama mbokk lébi yi ngi may déglu boo ñëwee Sendou nga dem bari Bargny ba Nianing ba fépp ci suuf Sénégal fépp fu lébi nekk ci suuf képp ko nuyu këram am na mbokkam boo xam ne doomam gaañ na ci géej gi. sénégalais boobu mënu ma ko wax ne man dama fier pour moo pays man ki may toggal sax doomam dem na ci géej gi bërki dem mu ngi may dégg ñi laan ko dama yeew rek mu ne ma Adama dem na jël na risque dugg dem ci géej gi ba léegi am na 300 jeunes yoo xam ne ñu si bëri am ñu ngi dëkk suñ koñ yooyu diggante bari ñu Rufisque et cetera ba léegi ñu ngi leen di seet gisuñu leen man sama buntu kër dañu fay taxaw booy di jël gaal gi mënuma si dara je pas fier de ce Sénégal